Babacar Fall ak Makumba Béri wax dëgg yàlla ay journalistes yu ma respecté lañu mais li ñu def nii moom jàpp naa ne manque de professionnalisme dëgg la ndax ñoom lii ñu commencé bëgg installé xaat kan moo ko wax bu fekkente ne dafa am ku wax loolu mais bu fekkente ne benn ku ñàkk maanaam ah, ah, dafa am ku taxaw fee wax ko kooku loolu wa wax mëne su ko jàppee officiel officiel mëne su ko jàppee loolu maanaam dafa am façon yoo xam ne dafa ko commencé bëgg a def mel na ñoom dañoo bëgg commencé xaat diaboliser dañu war a xaar ba ku nekk ci Pastef ku ñu xam génn wax ko wala kilifa ci Pastef génn wax ko bu fekkee am na ñu koy wax d'une part dëgg la sax mooy kilifa diine yi ñu leen mais ñi ñàkk leen a fal teexut ñoom ñu wax na du ñu ànd ak kilifa diine yi ci liggéey bi dañ leen di door a fal tey lañ leen installé nañ leen muñal fii ba un mois deux mois yenn détails yu ndaw yi war nañ leen koo mën a muñal ndax dañuy door a falu mais ku ñu installé tey. Euh, moom falagut sax gouvernement nga bëgg a installé nga bëgg a indi ay débat yoo xam ne mais dèjà RFM kon ñoom euh, wan na teel wane fan jëm de loolu jàpp naa ne du di wax li xew mais ñoom daa mel ne dèjà xat yoon wi ñu jël mooy kon dañoo fas yéenee bi wala boog kon dañoo doon seen diggante ak président Abdoulaye Wade man jàpp naa loolu du liggéey bu maandu déedéet nañ ko teg ci yoon rek nañ ko teg ci yoon rek moo gën vraiment mais li nii man jàpp naa ne diabolisation la moom ndax loolu bu ko président Bassirou Diomaye Faye waxee wala premier ministre Ousmane Sonko wax ko wala keneen wax wala ku nekk ci Pastef wax mais bu dee lu benn boy wax wala kenn wax rek mais loolu gis-gisam la loolu du voix officielle moo ci taxaw di wax en tant que rajo bu Leral ah. ma gis na ñu tàmbalee wax xaat ne cumul de fonction dañ ko doon bañ te Ousmane Sonko def na ko Ousmane Sonko léegi lañ ko fal di léegi la décret bi génn pour fal ko léegi moom moom ñi ngi koy door a fal naka la mën a bàyyee euh, euh, ndombal tànk meereem mais nañ ko xaar ba ci kanam lay def te Ousmane man mi ma xam man kooku fal tax ko jug bi lu ko waaye mën a waxal acte la acte la posé acte moom fi ne atte ko ci wane na moom bopp ko tax a loolu moom kenn wax ko Sénégalais yi fi ne nii ñu ko koo dégg da neex rek Ousmane Sonko moom ku bëgg def ci bopp Sénégalais ne bopp ko tax a rek moom loolu moom Sénégalais yi ñu leen njëkk a weddi su ko boppam taxoon a jug kon Bassirou Diomaye Faye du falu mais ñu ngi koy a fal léegi lañ ko génne na décret nommé ko kay pour mu bàyyi maire bi Ousmane Sonko bi ñu ko bëggoon def euh, ko te gis ngeen li mu wax mais xaar gis nañu commencé installé ci euh, cumul de mandat cumul de mandat cumul de fonction mais arrête waay loolu moom vraiment dafa am yoo xam ne moom man daal nit ñi dañ jëloo si xel réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñii dañ leen fànn lañ leen ak ñoom ñu liggéey jàppale leen ah mais vraiment daal li man daal leen kenn doxam lu ma ñëw ah